Mbàkke Seex Abdul Karim makaarimul axlaaxi mbakkaanu yem ma jéema kañ te bàkk Seex Abdul Karim makaarimul axlaaxi mbakkaanu yem ma jéema kañ bàkk Seex Abdul Karim makaarimul axlaaqi mbakkaanu yem doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji ko waral mu bare ay xame doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji ko waral mu bari ay xame murit yaag tiijaan ya ñañ fay dajaloo ñam yey jalaañoo day dagan tey tegaloo Cheikh Abdul Karim borom makaarimal axlaax murit yaag tiijaan ya nga fay dajaloo ñam yey jëlaañoo day dagan tey tegaloo dongom ya mokku lool di leeral seen kanam bëkkun fataaju ñam du ko xam dongoom ya mokku lool di leeral seen kanam bëkkun fataaju ñam duggantuma ko xam Cheikh Abdoul Karim Serigne Abdoul Karim Cheikh Abdoul Karim def leen ñu magal borom makaarima lax-lax doy loo na Cheikh Bamba ba toog ca dëkk ba di am teraanga teddu lool ngir barke ba doy loo na Cheikh Bamba ba toog ci dëkk ba di am teraanga te lool ngir barke ba rafet ji ko waral mu doon kuy tërbiya ku kenn bëggul mu jël defar ca daara ya borom makaarima laxlaax rafet ji ko waral mu doon kuy tërbiya ku kenn bëggul mu jël defar ca daara ya ku man na def kenn aayewul gindi kuréer takkal ko soxna ak mu jëm xolom baleer ku man na def kenn aayewul gindi kuréer takkal ko soxna ak mu jëm xolom baleer muy waaja daara ja daa yor paaka mbaa mu yor yatam baatin ba cëb këlam ca rey laxas xelam muy waaja daa yor paaka mbaa mu yor yatam baatin ba cëb këlam ca lay raxas xelam muy waaja daa yor paaka yor paaka mbaa mu yor yatam baatin ba cëb këlam ca lay raxas xelam ni leen ko jaajëf Cheikh Abdoul Karim ni ko jaajëf te ni ko jaaraama waay doomi sëriñ Fallilu Mbàkke mat na waay dimul dikkul te waaju jaaxle seetu ko saabu fa bàyyi ko gindee ko sant ko sëriñ Abdul Karim demul dikul demul te waaju jaaxle seeti ko saabu fa bàyyi ko